asalaamaaleykum suñu mbokk yi tey nag dañu am mbégte recevoir koo xamante ni moom mooy Ibrahima Sène kan mooy Ibrahima Sène eh ba haute couture fu wax haute couture rek lii ma ñu Ibrahima Sène l'un des plus grands en Afrique du costume africain am foo xamante nag ay jaar-jaay homecoming nag la deuxième aujourd'hui sur Madère TV moom la leen indil maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Ibrahima Sène. asalaamaaleykum euh, Charles maa ngi lay dalal. ci ci maison de couture bu Sartori Sène fi nga xam ne mooy sunu chef te mooy sunu bébé ba nga xamante ni euh, jël nañ ko tete nañ ko ba si fii ñoo ngi mbé am mbégte lool pour que nga ñëw ñu won la li nga xamante ni mooy sunu passé ak fi ñu toll ak li nga xam ne mbébét nañ ko tey pour jëmale ko euh, kanam Sénégal bi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk te ñoo ngi fexe ba nga xamante ni ñëw ci émission bi naan Homecoming pour mën a won Sénégalais yi nga xamante ni dem nañ bitim réew bëgg nañ dellusiwaat nan la ñuy def pour dellusiwaat ak ñi nga xamante ni ñoo ngi yaakaar dem nan lañ leen mën a wane na tamit am na lu intéressant la nga xamante ne mi ngi fii Sénégal war nañ ko mën a partager suñu jaar-jaar pour que noonu leen mën a def daal lépp lu mën a doon rek ci émission xam-xamin pour Sénégal mën a jóg jóg ci kanam kaw. jërëjëf laata ñuy wax Sartori Sène laata ñuy wax sa Sénégal. dañ tàmbale foo xamante ne fële lépp xëy na commencé mooy da dem mais avant ngay dem comment ça s'est passé. waaw comme léegi rek li may wax rek damay delluwaat gannaaw tuuti euh, wax ne man à l'âge de cinq ans laa laa am amour ci lépp li nga xam ne mooy ñaw ndax euh, dama doon choisir ay yëre yi ma doon sol comme sama grande sœur ku naan yaay daan ngay dem jëndaloon ma ay fëgg jaay ma ñëw brailler. jël samay loxo dugal ak sama poche nan na ma bëri pantalon ban ban nekkoon slogan lu mujj doon ba nit ñi daamu ci togn ak yu demee non léegi nak yalla dogal nak bima duggé ci école awmu ma envie jang ak yoy ñu forcément ba sem 2 ma jaaré fa quitter yakamti dem jangi ñaw parce que ñaw dafa mësa nekk sama xol ak yu demee non parce que dama daa def attention ci limay sol sax durant bi may jàngi école du tilim ak yu demee non lool yépp kon ñaw mo mësa nekk ci sama euh, xol

léegi euh, première ba amna na kii bee sax amna na benn veste ba nga xamné mi ngi fi ci cadre bi moy première veste ba nga xamné mom la laa ñëw bi mu amee âge de 14 ans kon yalla dafa dogal man fi la jànge métier mais dama ci teel xarañ parce que dama ko teel bëgg à bas âge la bëgg yére bëgg ñaw moma dimbali ba nga xamanteni da bi nga fi nekkee ma dem ba mujj gi 4 euh, ans ma dem ubi sama atelier dit ci soox dit ci soox ba sama grand frère ñëw Adama Gueye ku naan Adama Gueye décédé na sax léegi ñu indi fi ay euh, benn atelier de confection man ak ben italien ñu nekkoon ci ak yu demee noonu léegi ma liggéey ak ñoom ba mu yàgg après ñu jóge fa man mu dem continent ubbi sama atelier ñaari atelier ba jóge fi voyager loolu ensuite ñaari atelier ndax ñaw jigen la doon ñaw un peu yu particulier la ak yu demee non mais loolu ba nga xamante ni bi ma fi jógee ma voyagé nag yàlla dogal ne dama nga waroon dem dem mais ñu bari dañ ma doon wax sax Sénégal naan ma euh, ñi ma fa xamee xame woon Sénégal doon leen ñëwal dañ ne ma yow looy wut si Europe parce que yow xanaa dañ laa tëbal parce que ni nga mën a woon ñaw Sénégal mm-hmm. waroo woon ñëw Europe ak yu deme noonu man leen non damay ñëw Europe pour jàng si waat leneen la nga xam ne lu bokkul la ma xamoon ndax bu ma nekkee Sénégal li may def mooy la ma xamoon laay def pour que man ma euh, te bu ma xamee def li nga euh, continuer kon avancer foo ma jaar ma xam ma jàngi leneen lu la pour que mën avancer ak yu ma Europe bi ma ñëwee nag dogal ñu jours gis man li nga ne sentir parce que lépp lu may def man am sentiment bu ak lu mu ci mën a doon ndax euh, bu bu ma ci kontaanul rek man jarul dara jaralu ma ko du ma ko mën a def ak yu demee noonu man ma ne gars yi du ma jaay ñu ne ma ah yow booy Dakar nga ndax xam nga temps yooyu tailleur dafa daa civilisé dafa doon solo solo bu jekk ku ñëw gis ak ni ma doon solo dañ doon kii booy Dakar la bëggul liggéey liggéey tax koo jóg parce que jaayloo nañ ko mu bañ fekk comprendre ñu man lan moo ma indi Europe. y un rêve. y avait un rêve bi ma bëggoon réaliser moo doon duggante dugganteeg italien yi. nous savons que nous sommes tous les gens de ont vie. Parce que la précision que nous avons, nous avons fait dans le monde. Le travail manuel, ce qui sartorial, la haute couture, nous avons fait dans le monde. Parce que nous avons plaisir de nous faire une chemise. Un père qui a 80 ans, vous voyez que chemise avons une chemise braille. Il a un pilot vert, un pantalon bas cigarette, relevé 5 à 6 cm. loolu Italie rek nga ko mën a gisee ka xam ne am na quatre-vingts danga naan kii xanaa dee ko dese fekk kooku tey day mel dafay gën a tey lay commencé waat dund ak yu demee noonu kon déjà nga gis ne léegi ñëw foofu gis ne tey jii nan laa mën a def ba dugg ci kii bi ma ñëwee euh, kin noonu wax sëñ ma bi mu yóbboo ci benn atelier femme bi ñëw wax ma ne ma noo soxlawul ma ne ko non man soxlu ma liggéey xaalis liggéey rek laa soxla parce que xam naa ne man bu ma ñëwoon di wax waxu xaalis. xamuma xamul fan laa juddoo fan laa yaroo fan laa màgge ba toll ni ma toll xamul lan laa jot a def man xam naa ko mais moom xamu ko bu mu ñëwee di ko won ni ko di ko ko wax ak yooyu du ko mën a gëm kon dama naan foog ma won ko ko pour ma won ko ko foog ma désintéressé wu ci ma ci matériel ci lépp luy xaalis dama ci désintéressé wu à cent pour cent ma ne ko soxlawu ma xaalis li ma soxla mooy liggéey laa sox parce que déjà amoon naa difficulté dégg làkk bi Euh, amoon xawmu xaw dëkk bi nan la demee kon fu ma mën campé wu ak lu mu mën a sep-sep même buñ ma fayul dara sax dama doon nangu mu mu wax ma la nga xamante ni simit comme nga ne simitu Sénégal cinquante sept mille mu ne ma trente mille ma ko baax na. Mhm. té ka nga xamné un professionnel nga daf da nga fi bàyyi 10 personnes ci yoroon ci ñaari atelier bayiko fi dem Italie nga ñëw ñu lay fay loolu.

ndax amana fi bari na jigéen nga xam ne Sénégal ñu bari bu ma leen ñawlul woon jamono yooyu duñ sol sol bu rafet bari na nga xam ne ñoo dem baali ci ay con sekk ay mardi ay mercredi ak yu demee noonu loolu yëpp man maa leen doon ñawal yu sexy laa doon ñëw ak yu demee noonu kon am na la nga xamante ni loolu aayoon naa ci ñëw trop dama doon def body dama daa def ay lingerie euh, comme nuisette yi dama daa ñëw nuisette dama daa ñëw ay costume euh, maillot de bain pour plage dama daa ñëw tailleur dama lépp dama ko doon ñëw ndax lépp loo xalaat ci àdduna rek daana ko na naa ko avant may voyage kon amoon na assez expérience bi la mu fiy jóge mais expérience bu ma mën a am ak li am Europe dafa wuute ak li nga xam ne lu ma xamoon Sénégal foo jaar ma dem wuute ji kon bi mu ñëwee bi mu ne bi mu ne essayé ma ko amul problème mu jaxlé parce que li mu xool mooy ah africain la. jógee fi pour ñu wut ci xaalis. comment ça fait que mom mu désintéressé ci xaalis xaramu xol diko sétlu est-ce que limuy wax dëgg la ci mom wala du dëgg ci mom mais muy gis ni buma joxé joxee liggéey dama ko don dama don liggéey plus de dama fa battre record comme man lima don wax ak sam benen xarit ku naan Alla Sarr dama fa battre record parce que dama liggéey 15 heures et demie ba pendant 1 an def naa ko la nga xamanteni ci ci tamit pour gën ko won ne ko wanaale sam bopp won ko mais li ëpp importance won sam bopp est-ce que atanna douleur est-ce que atanna man li nga xamné la bëgg. donc sa endurance. sama endurance ci pour production bi. exactement sama endurance ak yu demee noonu te liggéeyu Europe une heure de temps moy quatre heures de temps liggéey Sénégal parce que Sénégal liggéey ñu boko waxé yat jóg mais Sénégal liggéey ñu. li ñuy def doo xam lan la muy man muy keneen ak keneen ak keneen. pourquoi liggéeyu parce que liggéeyu ñu mooy dañoo jël liggéey bi jàppe ko passe temps maanaam sénégalais bu xëyee li muy njëkk a muy xool programme am est-ce que amul beneen programme est-ce que amul dëj amul ngénte amul beneen événement bu lépp xoolee ne benn événement amul mu ne xaaral ma dem. ma dem liggéeyi. <laughs> léegi nag dañuy yàqamti nga annoncé leen benn événement rek ban jaar jaare fa dem liggéey ci dem ci événement ba ak yu en ensuite xamuñu valeuru liggéey lan lay def parce que liggéey dafa am ay dafa thérapie parce que day day day dindi feebar liggéey bu vrai liggéey laa wax day dindi feebar vrai liggéey day dindi toroxtaange vrai liggéey day dindi stress vrai liggéey day day lay yokk fi sa kii physique da koy gën a defar vrai liggéey da lay yokk xam-xam vrai liggéey day yokk poche bi la nga xam ne doo yóbbu sa njaboot ak yu demee noonu maanaam liggéey boo xoolee muy mu ji njëkk te moo mujj ak yu demee noonu looloo tax sénégalais valeuru liggéey ñu ci bari xamuñu ko parce que koo liggéey loo mu ne kii dafa ma bëgg def mbaam dafa am nangam dafay lii dafay laa kenn du ma rey ñii jaruñu ko liggéey bi jaru ko kenn du fi rey sa bopp ainsi de suite ainsi te mosuñoo gis liggéey ku mu rey mi eh, mentalité mhm. bi ngay wax ni muy mentalité Europe manam jox liggéeyam gëdd té danaka sax bu ñuy wax yalla yalla ci tàmb ci liggéey la tambalé jëf waaw mentalité gogo est-ce que yomb na yow bi joggé bitim réew ñëw fi yomb na ci yow pour nga implanter no c'est très difficile li tax mu jafe moy comme limay wax manam lu ci nek dañ naan ki dafa bi ki dafa compliqué ki dafa nangam ki dafa nangam ak yu demal parce que Sénégal dafa am na nga xam kër yi di yare seeni dom maanaam dañ leen di jàngal tappale tappale bi ñuy jàngal seen doom mooy lan da war a dem sa patron dala war a fay nangam dala war a nangam dala war a dimbali dala war a jàppale kenn warta jàppale kenn kenn ku nekk yow yaa war a jàppale sa bopp sa papa waru la jàppale sa yaay waru la jàppale kenn waru jàppale parce que Sénégal looloo ko yàq léegi nag jàppale boobu ñuy wax naan dañ la war a jàppale léegi encouragé wu nit ñi ñu dem li wuti xam-xam parce que tamit xam-xam dañu war a xam mooy dañuy jékki-jékki ku nekk ñëw ne xaaral ma def baax na mais bala ngaa def demal jàngi parce que jàngul tari amul fenn ci àdduna li li nga xam ne moo jiitu moom mooy dem jàngi pour mën a def pour que loolu nga def ko pour yow sa bopp avant kenn pour toi-même nga xam ne satisfaction bi ñu ciy def dafa énorme après nga mën a jël ba mu ba bu feesee sa xol ci lay commencer génn ba nit ñi di ko gis di ko apprécier ak yu demee noonu. légui nak lool mo waralon man bima démé fofu bima bi ci ki bi bi muy wax lépp lu muy wax man dama koy def 100% xol man daf may sonal daf may nangam ainsi de des fois dañ doon ñëw sax jéem la bét pour xol ndax yaangi ngi liggéey yaa ngi li mën ko sama xel noppalul man taxoo may def man sama bopp mo tax may def parce que loolu te permettre na ma chaque mois mu dima ma yokkal di yokkal ba 2 ans et demi yama fa def mu dem ba mënutuma fay manam li ma doon fay dafa bari won mu ne ma ah yow de ubbil demoon ubbi sa atelier pour que man lay fayale di nga créer sa sa entreprise man ma lay sous-traiter di la fayaale say taxe ak yu deme parce que fofu taxe yi dafa bari surtout boy liggéey heure yu bari bari ak yu deme parce que kuy liggéey 15 heures et demi ak yu deme noonu loolu déjà la nga doon fay ci ki bari na lolu momo moo kii mu ne ma nak da ngay dem ci centre gestion agréé légui au lieu nga dem ci ki parce que ñoñu dañuy cher euh, expert comptable yi damay centre de gestion agréé ma dem foofu léegi foofu jàng naa fa lu bare parce que centre de gestion agréé yi avantage bi mu am ta fii même am na Sénégal mais fonctionné wul comme ni mu waroon fonctionner ni mu waroon fonctionner mooy lan mooy da ngay ñëw ñu lay tàggat parce que dañ lay won ne la yow da ngay am am nga métier demal defi sa métier lii suñu métier la lii comptabilité lii di marketing lii di recherche de financement lii di business plan lii di nangam yooyu yëpp.

ci kii bi maanaam li nga xamante ni mooy euh, ci fa ma nekkoon ginnaaw loolu tamit ci centre de gestion agréé yooyu nga xam ne tey bu ma sañoon état ubbi ci lu baree bari ba 3500 fépp fu ASC nekk centre de gestion agréé de fa war a nekk ak yu demee noonu pour mu accompagner jeunesse beeg yu demee noonu xëy na sax ben ben ben programme bu la bu yaatu ba nga xam xaju fi pour ñu mën ko développer mais amna la nga xamanteni xam-xam buñ ci am ba nga xamanteni ni mën nañ ci accompagner état bi pour mu créer ci ba ba 1 million d'emplois sax même bu fekkee bëgg na mën nañ ko ci yaatal ak yu demee noonu parce que histoire la bu européen yi di def muy fonctionner di def ay fonds fonds perdus di financer jeunes yi ci fonds perdus yi nga xamante ni ça fonctionne très bien même bu amee ñu ci échec dina am 80% ci boppam dañeen ci réussir te buñ ci réussiree yóbbaale nañ ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais loolu comme pour pour pour yaatal ko xaju fi dañuy jéem a dem ci li nga xamante ni beneen côté ba nga xam ne moo essentiel leneen loolu mën nañ ko développer après. tout à fait kon yow ba ngay dem maanaam xam-xam dem jox ko xam-xam dem foofu gis lan mooy rigueur maanaam lan mooy liggéey lan lay daaj comme rigueur mom nga jëlaale indi ko Dakar tuddee ko Sartori seen mu ne sànq Sartori Sartori Sart defe en Sartoria en italien comme lu ko waxee moy haute couture. haute couture donc pourquoi Sartori sen Sénégal. ndax pourquoi Sartori sen Sénégal ndax xam nga da ngay def dara mu jik le lol léegi bu la jigé ndax bo démé c'était pas évident comme li koy Mansour di wax sam ben jarbaat lim koy waxé rek ndax nana c'est pas donné à n'importe qui parce que bo ñëwee Italie ñëw ci ben dëkk.

parce que bi mu Sénégal commencé ci quatre personnes. ban année la woon bon ay 2007. 2000 euh, n'est-ce pas non 2000 2008 en environ 2008 le, la la laa dellu si ak yu demee noonu léegi nag bi continuer non boobu parce que amna la nga xamante lu bari lu ma apporteel mané xara xaaral ma reconduire ko te gis na né bima ñëwé ci quatre personnes la commencé légui tey jii yàlla dogal na dem nañ ba ci euh, presque trois cent employés te bientôt am na beneen extension ba nga xam ne ñoo ngi koy préparer ba nga xam ne dina am cent cinquante de plus bu ñuy jël mais loolu dinañ ko génne un peu Dakar pour jàppale ñeneen ñi nga xamante ni ñoom sori nañ mënuñu am possibilité ñëw fii ak yu demee noonu. Ibrahima est-ce que yomboon na ñëwaat dellu Sénégal am installé Sénégal parce que laaj boobu dafa am solo pour képp koo xamante ne bitim réew nga bëgg bëgg ñibbisi. Sénégal est-ce que yomboon na pour yow. Euh, yombul yombul yombul yombul ndax di tax yombul moy bu da nga au sommet fofu di di di ka nga ci affaire da signé orthographe au di dox am khalis fofu yow nga war reprendre à zéro Sénégal yombul won te du yomb te du mës yombo yomb parce que aduna moo demee noonu lu baax. mais pourquoi du yomb da nga doon signé autographe Italie. Ouais. italien respecte la nga ñëw sa dëkk warul yomb pourquoi. non xam nga lu tax du yomb mooy lu baax mënta yomb parce que nit ñi boo xoolee ñi am tey teranga teranga tey buñ la waxee seen jaar-jaar. mën nga ko jëlee comme peut-être sëñ Touba jëlee Nelson Mandela jëlee ko ku nekk ak fi nga jaar maanaam ñii ci

moy Sénégal dafa am culture buñ am culture bi am moy lu nek dafa am kan nga moko wara def manam kenn ku nek du jël ay responsabilités ku nek dana diw moko wara def même tey jii bu fekkone ben lu tilim wala euh, mbalit ci mbedd mi wala lenen kenn ku nek amna kum ci xaar légui nak le fait que ñuy xaranté ku nek diko jox kenn lolo tax Sénégal du mësa yomb même ci fi ngay nek Sénégal tamit. kon si manta mentalité yi la. ci mentalité yi la. parce que nit ñu yare moom moo baaxul ndax nit ñu yare dafa am façon bi nga xam ne lan ko waroon changer mooy li njëkk mooy waratuñoo wax ne tey ji papa moo la war a yor yaay moo la war a yor doom moo la war a yor dañoo war a wax kenn ku si nekk yaa war a yor sa bopp loolu bu fekkee jàngale nan ko léegi kenn ku nekk dana jóg waxtu bu waree jóg parce que bu xamee ne tey bu jógul liggéey tëdd di nelaw.

boo cotisé wul ci reer bi doo reer ndax jóg nga jóg daw wuti li ngay def boo ñëwee cotisé léegi loolu bu fekkoon instauré woon nañ ko fii Sénégal ñu bàyyi ne diw moo wala moo la war a yor kon tey ji Sénégal dina mën a développé temps record léegi beneen côté bi boo xoolee tamit ci ginnaaw loolu ñu dellu ci un li nga xam ne mooy sama métier sama métier mooy lan couture lépp xam na ne tey li ëpp importance ci àdduna mooy yëre parce que avant ngay wax. pourquoi moi am importance. li tax mu am importance mooy kilifa kilifa wala ku juddu liñ lay njëkk def avant lek avant ñu lay jox biberon wala loolu dañ lay sang ba paré dañ lay sang kon géré mom moy textile mom lañ lay sang bo génné aduna tamit mom lañ lay mujjé sang déjà kon amna valeur bu bu immense bu mu am té moy sutural nit té boy xol tamit yow nit ki bu yewoo ba sangu. ba pare li muy njëkk a xalaat mooy yëre lay xalaat soog a wuti lekk kon yëre sutura bi muy suturaal doomu aadama amul leneen lu raw loolu kon nag ci kaw boo xoolee loolu tey nga xool sénégalais yi ñaata la ñuy consommer moo xam ci euh, slip la moo xam ci caleçon la moo xam ci sous la moo xam ci soutien-gorge la moo xam ci chemise la moo xam ci veste la moo xam ci sabador la moo xam ci lépp loo ko mën a xalaat rek lu mel noonu tey buñ ko calculer woon tey dafa nekk marché bu immense ba nga xamante ni sénégalais buñ ko liggéeyul keneen moo xam chinois lay tudd wala américain lay tudd wala italien lay tudd ñoom dinañ ko liggéey jox ñu ko ñu sol moo tax bi ma fi dellusee dama ñëw ne gis ne tamit comme am na la nga xam ne li ñu jege say bët doo ko mën a gis foog nga sore ko pour ko gis ko pour nga mën ko gën a gis bi ma nekk Europe dama gën a gis Sénégal gis manquement yi fi nekk ba ma kaas naan lu tax nit ñi ñaw góor évolué wul évolué wul ndax la ma fi bàyyi woon ba ma juddoo ba bi ma fi jógee dem Europe dellusiwaat xoolaat ko gisaat ko ne sabadoor yi yi amoon moom la nit ñi continuer sol tout tout le temps ma ne lu tax tailleur yi ko def moom na métier man maa ngi xas tailleur yi war ko def man lan la kon man dama war a ñëw ñibbisi pour fexe def la nga xamante ni innové innovation bi moom mooy dama doon ñaw costume Europe avant may dem sax fii laay commencé ci costume dem améliorer ko bu baax a baax a baax a baax a baax di def costume fermé ak yu demee noonu léegi nag loolu laa ne naa ko andi. def ko costume africain def ko costume africain léegi damay tëj veste bi rek léegi génn ci. li nga xamné ne li may daggee ci kaw comme manche veste la poche bi poche veste la lepp veste la doublière bi ak ainsi de suite ak yu demee pantalon classique la ak yu demee kon quatre comme ni may ñëwé veste mom lay ñëwé costume africain bi légui nak nga xamné légui jël lu africain ay touches ay broderie ak yenen axis boole ko ci légui nak bi mu ñëwee nag ci la né xaaral ma delloo njukkal waa diaspora parce que ci diaspora bi la jóge moo tax bi ma créé modèle costume africain bi dama ko tuddee diaspora ci biir jaspora dafa am ay ay sous modèle yu baree bari ndax dafa am jaspora classique art star marabout Baye Fall mhm. weekend kara raglan évêque sport imam Makhtar Maggi Girassi MKO wala Fitigi sporting sporteur Diallo Séméga en l'infini laay laay laay Makhtar laay Mamadou laay Alassane yooyu yëpp ay modèle une variante variantes doon yu si nekk ak yu modèle que nous avons créé rek que naa ko tur tous les jours maa création ci modèle yeeg le demee noonu ba modèle yooyu tey dem na 60 000 emplois plus de 60 000 emplois au Sénégal. Au Sénégal, en Afrique. En Afrique. Parce que. Uh-huh. donc vous bon du costume européen à combien euros 1700 1500. 1700 euros 1700 euros du costume européen à 1700 euros au costume africain Momge Indifi. avec Sartori Sen nga depuis si je comprends bien 300 employés dégg plus de 80 de la production destinée en Afrique voire mm-hmm. même à l'international. Exactement. Tu ambassadeur ou ambassadeur mode africaine, culture sénégalaise, avec mm-hmm. mode sénégalaise, définitivement tu l'un des plus grands ambassadeurs en tout cas. Mm-hmm. Sartori Sen jusqu'où maintenant Sartori Sen jusqu'au. Ce que c'est mon projet futur, c'est que créer 10 000 à 100 000 emplois direct ndax lolu un peu dafa am la nga xam indirect lañ koy def mi ngi fonctionner parce que comme ni mako waxe waxee dem na bu ñepp di ko reprendre tay nga xam ne tailleur yu bari tay bo xolé ñoo ngi inspiré di def li may def dama ci sante yalla parce que bu baaxul woon duñ ko def kon ma ngi leen di jariñ ci d'une manière un d'un autre maa ngi leen di jariñ kooku dama ciy sant yàlla bu baax parce que maa ngi ciy jaamu yàlla ci autrement ak yu demee noonu comme maa ngi participer tey lépp la nga xam ne dugal nañ ko ci dépense bu dugal seen kër man dam maa ngi ciy sant yàlla ak yu demee noonu parce que permettre nañ leen ñu liggéey ak yu demee noonu ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ci ñoo ciy jaay ñuy jaay tissu ñuy jaay fourniture yi dem na ba nga xamante ni fii bari woon na couturier yu mag yi buñ amoon marché dañ ko daay yóbbu à l'étranger ñu ñawal leen ko grâce à Ibrahima Sène ak li mu li nga xam ne commencé gën a wone ñu bari tey dellusiwaat nañ ba léegi ñu ngi commencé di produire li nga xamante ne moom lañ doon yóbbu à l'étranger ak yu demee noonu. nous reste pratiquement émission bi neex na loolu nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mhm. pratiquement fin émission bi ñaar question laa lay posé balaa balaa ñuy tàggoo mooy gis naa aussi que à part costume africain yoo xamante yaa ngi koy def macha allah mu ngi dox ci pièce bu ne mais aussi il y a des confections d'uniformes te tey Sartorisen toll na gis machine yu ñu gis war na mun équiper ñëpp en terme d'uniforme exactement comme ni ko gisee noonu moo di euh dafa am luñ def mu fonctionner léegi ñu bëgg ko dolli li naan xaw ma yokk cere dolli ñeex xaw ma ne ko wolof yi bëgg def comme def nañ dara mu fonctionner dañu bëgg am lénen doon def parallèlement pour yéene nañ ci mu fonctionner comme ni qui bi fonctionner moy lan. mooy fexe ba nga xam comme yàlla dogal na am nañ plateforme de coupe ba nga xam ne mën na dagg ba cent mille pièces par jour am nañ système ba nga xamante ni ñoo ngi koy liggéey la nga xam ne assez innovant ak mais li ci dolleeku tey mooy dañoo bëgg fexe ba képp kuy corps de métier yaa xam bu mu mën a doon mécanicien maçon menuisier jaaykatu caaf jaaykatu café Touba ñun ñëpp tey buñ sañoon ñu sol ay tenue tenue professionnelle maanaam tenue de travail ñu loolu ñu ngi ciy liggéey pour que ba nga xamante ne pour que bëgg nañ mu fonctionner ak ñun mais yéene nañ tamit yeneen tailleur yi coppier loolu ñu dem ba nga xam ne tenu de travail dañ koy jaay ci quincaillerie yi pour que ñëpp kenn ku nekk mën a def lu mel noonu ñun yëpp maa ngi ciy invité même confectionneur yëpp ñu xalaat comme noonu may xalaate pour que ñu mën ko yaatal fexe ba mu xam ne dina accessible ci ci ñëpp parce que tamit ci benn côté am na mooy li ñuy wax ni lu waaye di wuyoo koy nuru dem ba nga xamné wa ñi dawal car rapide yi ñiy dawal taxi ñu ñep dañ leen war a équiper ay tenue de travail parce que lolu moy andi benen développement ba nga xamante ne tey dana tax yeneen confectionneur yi dinañ ci gis seen bop mais ñoñu tamit ah, dinañ am identité ba nga xamante ne yow fierté lay doon parce que bari na ci liggéeyukaay kay ko jox blouse ak yu demee bu duggé day fier

mu nekk la nga xamante ni du yokk seen valeur entreprise lay doon te bu yokkee seen valeur entreprise cela veut dire que dana créer am yeneen emploi yu dul jeex yi nga xamante ni kon loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ bëgg pour Sénégal développé wu ak yu demee noonu. yaa ngi fi wax léegi léegi rêve nga fi wax xam naa fu la ñuy tëjee suñu émission. Euh, jogé euh, comme après combien d'années nga jogé Italie ñëwaat Sénégal pour benn rêve bo xamante mo lu yobone Italie ñëw réaliser ko fi Sénégal est-ce qu'il y a une invitation à la diaspora vraiment pour wala Sénégal yu fi pour dire que le rêve en tout cas gént gént amna existe na war nañ ko xam exactement lool la leen di wax toujours ndax ku wax ne ma Sénégal ñëw na essayé naa métti na daw Sénégal kenn mënu fa liggéey man leen non lan ngay yaakaar da ngay def mu yomb mais bu yombé ñëpp koy def yow da nga war insister ñëw fii man mi ngay gis nii lu ne fu nekk jaar naa mais dama dama rêve dafa ànd ki nga xam ku ko pas ki ko gëm parce que ñun Sénégal dañuy wax gëm nañ yàlla gëm mais loolu am na solo mais li ëpp importance bi am confiance ci Dieu ne ko man lii laa bëgg yow yaay xool nag kañ nga ma koy jox ak nan ngay arrangé woo ñen ngay wax ñooñu ñooy ñëw jàpp ci ba affaire bi fonctionné mais loolu yow la li yow la ci yow la des yow yàlla mais man mi nga xam ne man maay sa doom li nga xam ne laa bëgg lii laa bëgg dama ciy dem tous les jours bu mettee ma dem ci bu naxee ma dem ci ndax bu saay bu naaj amee ker dafay am bu tawee day sebet ainsi de suite ainsi nit ñi buñ ku demee ba comprendre loolu que yombul te du mos a yomb mais différence bi mooy nga ñëw persister yàlla fekk si la ci ak yu demee noonu tey c'est possible ak ñoom tey ji li ñuy daj Europe moo gën a metti fuuf ko li ñuy daj fii parce que yaa ngi daj la nga xamante ni metti na mais en même temps sentiroo ne yow foofu nga bokk man lu ñuy wax ak cooli cooli loo mën a wax loo jéem a bokk-bokk boo fa amee jabar loo fa mën a am ay biens yoo fa mën a am yow di nga sentir que ne tu toujours un étranger li nga xam ne nga mën a def mu safe du Europe Sénégal la mën a safe parce que Sénégal ngay mën a def ñu ne ah waaw góor ak yu demee noonu bañ na ko ba solo boo jaar solo jaar foofu tubaab bi dañuy mel ni yow kenn du la xool parce que loo mën a solo solo tubaab bi yàlla dàq ci physique ci image ci kanam ñoo la ci dàq fuuf ñoo la dàq solo xaalis bi ngay am yow di jéem a calculer sa solo ñoom duñ ko calculer kon loolu ñooñu ko ëppale amul loo fay jaay mu kii bu dee oto bu rafet Si fa dawaloon ki sax ken la kon Sénégal nga ko meuna pour Sénégal jariñ tamit ñi nga xamanteni fi nek parce que xam-xam bi ngeen biñ à l'étranger fi rek la amé valeur mais buñ ko ba déwalé mom suñ dundu amul sens tellement pour man sens bi am suñ dundu d'exister moy sens bi nga xamanteni ne fi lañ koy fay la fi Sénégal combat bi la du Europe nañ ko daw song ñun ñëpp ñafe ko pour Sénégal développer parce que tey booy yi jaay ci mbedd mi du responsabilité état du responsabilité kenn ñun ñun ñun les immigrés suñ responsabilité la man noonu laa ko jàppe kenn ku si nekk dafa war a wax ne lii sama combat la personnel ndax ñun liñ xam amaana ñun suñ autorité xamuñu ko gisuñu ko ndax ñun ñooy dawal nekk ca terrain ba Europe muy sedd muy neige ak yeneen ak yeneen ak yeneen façon difficulté bu nekk daj nañ ko tey noonu ñu ko daje ci la ñuy xam ne lu li nga xamante ni tey bu ñëwee def ko tuuti fii Sénégal tuuti rek doy na pour Sénégal mën a changer en temps record. merci tey moom comme Camille suñu gan c'était Ibrahima Sène une très belle émission boo xamante ne def nañ ko ak moom di la remercier bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di ne jox suñu téléspectateurs yoo xamante ne Mader TV la ñuy seetaan. Mhm. suñu internet yi di leen jox rendez-vous pour beneen numéro merci beaucoup. merci merci Charles. thank you merci. merci lu mu ko tëjee c'est très bien.